fa deret moo fa daje wala deret jay daw vitesse wala deret manqué fa moo tax léeg-léeg gis ku ndigg lay métti mooy deret ja nam fa doon dawee la fa daweetul wala boog pooj bi fépp fuy métti rek deret jaa fa daje ba mu ëpp wala mu manqué fa ba mu ëpp wala tabarkalla yu demee ni ko yooyu moo tax su guddee nag boo tëddee ba deret ji daw ba kenn ku ne placé waat fi mu placé wu boo xëyee boo sangoo rek mën a dem tabarkalla moo tax su gudd jotee jamono tàngoor loolu la yàlla bëgg ci deret yi jamono sedd loolu la yàlla bëgg ci deret yi waaw nga tëdd nag ci lal am na nag lal boo xam ne boo ca tëddee léeg-léeg moom waxuma la deret ji daje waaye deret ji mën na indi beneen muskila wala yeneen jafeñ-jafeñ ndax tëddin ndax kuy tëdd soo juutoo du baax ba nga gënaay la koy mu ëpp du baax ci kéemtaani suñu borom yi tabaraka wa taala la bokk boo defoo ne du baax da nga tëddee wetu ndeyjoor sonn def càmmoñ sonn jaaxaan li yaskunoo fii ngir ñu mën caa dale bu ko defee góor ñépp daal di noppalu wan nahaara bëccëg bi it mu bu siraa ñu def ko muy lu leer kenn ku ne xëy wuti sa wërsëg bu bëccëgee li yansarifu fii fi talabil maasi wa rizq kenn ku ne wuti loo am lu indil seen waa kër loolu inna fi zalika nekk na ci ñaari mbir yi la ayatin màndarga yuy wane ne yàlla kenn la li xawmin ci nit ñoo xam ne yuminuuna daañu nangoo gëm ku nangoo gëm ku ne danga xam ne kenn rekk moo man lii defal ñu guddi defal ñu bëccëg te lu guddi dox bokkut ak li bëccëg di dox li nga mën ci guddi mënoo ko ci bëccëg li nga mën ci bëccëg mënoo ko ci guddi tabarkàlla loolu ci kéemtaani jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu yi la bokk yàlla nee na wa yawma yunfaxu bis ba ñuy wal fi suuri ca buftu ba suratu namli aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar bis ba ñuy wal fi suuri ca buftu ba buftu daa koy misaal danga naan ak le ak liit la gu goo xam ne gii menn malaakaa ko ŋàbb nekk fa suufi yam ca soow xulli ay bëtam seex léet ga sukk ay óomam tabarkalla jàpp ca nopp yi xulli bët ya di déglu suñu borom ngir mën a ko wal ko son bi mu koy wale bu fooraay wi tax na nopp mënu koo dékku rajo bii ngay déglu fi mu nekk nii bu ñu ko yokkee nga ne wàññil loola jagal lu nekk bu fooree say nopp di di di tabarkàlla di di bëgg a yàqu fooraayu lii nag tubaab bi mënu koo defar lépp lu mu defar lu mu foor foor ci ay nopp bés bu buftu walee kenn musta dégg son noonu te bu ñu ko walee min mashariqil ardi bi magharibiha ñépp koy dégg li tàmbalee penku ba sow bis bu malaaka mi ci liit gi fa fasi'a day tiit man fi samaawaati lépp lu nekk ci asamaan wa man fi ardi ak lépp lu nekk ci suuf illaa man sha allah lu dul kaneex yàlla li ci asamaan lépp ay tiit li ci suuf lépp ay tiit lu dul kaneex yàlla malaaka mi ñu koy wal noonu nag mooy israfil bu ko walee abu hurayrata radiallahu anhu nee ñetti wal la koy wal dana ko wal wal goo xam ne gi mooy nafqatul fasa'i nga xam ne bu ko walee lépp lu ne ci kaw suuf ak asamaan danga nga ba mu neex ba mu des la neex yàlla mu walaat ko wal gu ñu tuddee dina zaqi mooy bu ko walee lépp lu tooyoon da wow lu amoon roo da nga dee allahu akbar mu walaat ko nafqatul xiyaami minal xuburi wal goo xam ne bu ko walee lépp lu ñu suuloon ci biir suuf danga nga sulliku lépp lu amoon ruu sa ruu dellu ci yow wax jii boo demee ci albaxar jukkib juróom-ñaar xëtub juróom-ñeent wax ji foofu la ko indi muy wax juñ jële ci abu hurairata mu di benn saxaaba ca saxaaba yu baax ya daan ànd ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu dekkee nag wa kullun ñoom ñépp atawhu ñu dikkal yàlla na di way toroxlu kenn ku ne boot say loxo di yoot ndànk di wax wax ju suufe mbaa nga noppi te yërëmtalu wa kullun atawhu daaxirin ñépp dikkal suñu borom kenn ku nekk di ko wane ne man de duma dara tabarkalla la taral jibaala nga gis montagne yi tax sa taxsabuhaa dangay yaakaar ne jaamida mi ngi ne degg ci benn barab dafa way wahiya ndekete yoo wayut tamurru ma ngay romb marra sahaabi rombug niir ni niir yi di dawe nee na montagne yi noonu la dawe tasiiru sayran sarian ka sahaabi moo tax al imaamul faqr razi ca tafsiram ba mu ne wajhu xusbaanihim annaha jaamida an al ajsaam ida taxarakat xaraka sarica ala nahjin waaxid zanna annaasiru ilayha annaha waaqifa maa annaha tamurru marran saria tafsirul kabir jukkib ñaar fukkeel ba ak ñeent xatum fanweer ak ñeent nee na li tax nit ñi yaakaar ne doj yi dafa taxaw mooy lu rëy lu nekk bu dee daw te jëm ci benn barab dawin wu gaaw ki koy xool day defe ne li muy xool ci benn barab rek la nekk fekkate li muy xool ma ngay daw daw bu gaaw suuf mii nga xam ne ci lañuy dund taxaw ci bokk na ci tabarkal la ba xam ne bu dee daw dangay yaakaar na mi ngi taxaw benn barab wataral jibaala nga gis doj yi taxsabuhaa nga yaakaare ko jaamidatan loo xam ne dafa way ne dégg fa mu ne dégg tuxuwul waxiya ndekkite yoo wayut de tamurru ma ngay romb ma rasahaa bi romb wu xiin ni ñu xiin yi rombe wala niir yi doj itam noonu la ñuy rombe moo tax ulama yi jàngale mbirum géographie ñu jaare ci ne kon kat ñi ne suuf day werangeku wax nañu dëgg tabarkalla tamurru marra saab sahaab lii nag sunallaahi mooy defarug yàlla sunallaahi mooy defarug yàlla mooy sosug yàlla alladi yàlla mi nga xam ne atqana kulla shay'in jekku na lépp yàlla mi nga xam ne xana jekku na kulla shay'in mépp mbir mbir mu yàllay def mu ne daf koo man moo tax alayhi salaatu salaam di wax ne yéen ñii wut métier di wut liggéey waaye waaye bu leen dem fenn wax fa métier mu ngeen mënut ku ciy def ci yéen métier na nekk muy métier mu man kuñ ci sant loo mënut nee na nanga ni mënuma mënu ko ñu jox laloo man nga ne lii laa man yuusufa alayhi salaam keela ba nga xamee ne ñëw na misra ba yay xew-xew ba buur ba xam ni kiidu du ku tuut mu woo ko ci wetam wax ak moom def ne ko innaka al yawma ladayna makiinun amiin waaye moom it mu xam lii nga xam ne moo nekk ci bopp yonent yi mu ne ko ij'alni ala xazaayinil ard inni xafisun alim tabarkalla kon nit ku ne bu mbir yi taxawee ñu lay tànnaloo tànnal li nga mën tabarkàlla fubalkat yi bu ñu jógee mayo yi naan jël leen waaye waaye bu fekkee yow ab góol nga kay looy jëlem neuf di fi indi ay coow kon métier yi noonu la métier mi nga man buñ la ko jël loo jëlal waaye mi nga mënoon nag ñu jël jox loola ko nga nekk ca dangay nekk ba mu yàgg rek la nga indi coow lu ne ku rote du kenn du xam fu mu jëm sun allahi alladi atqana kulla shay innahu yàlla xabiirun ko xam la bi ma tafaaluna ci lépp li ngeen di def kenn ku ne li ngay def ci sa ruq ci biir nit ñi ci mbooloo mi ba nga wéetee yàlla xam na lépp moo tax dinañu ko fay kay lañu koy fay mu déglu leen suratu naml aaya juróom-ñett fukk ak juróom man jaa abil xasana ku indi lu baax alaaxira lay wax de ku ñëw indi lu baax falahu dana fa fekk dana am xayrun min haa lu gën lam indi allahu mu ne wa man ataa xayra masnuunin fa qurbatuhu marduudatun charra raddin xaytuma alana mu ne wa man ataa ku dikk indi yowmal xiyaam gayra masnuunin lu kenn sunnaalut fa xurbatuhu jaamu yàllaam ga lépp marduudatun dañ ko koy delloo charra raddin delloo in wu ñaaw lañ koy def sax tabarkalla kon nag kuy dem ku ne na nga fexe ba yóbbu alxasana kuy dem àllaaxira ku ne na nga fexe ba yóbbu alxasana yàlla it nag fii waxut man faala alxasana ku def lu baax déedéet ku indi la wax moo tax nit mën naa tàmbali def lu baax te du ko mujj ndax dafa ne ku ëndi nit mën naa def lu baax ba noppi du ko yóbbu ndax nit a ngi def lu baax ci suba gi ngoon mu yàq ko waaw def lu baax yàq ko am na ñoo xam ne li ñuy def dana baax lool tabarkàlla ñépp a ko rafetlu ndax mbirum diina la te diina nangu na ko waaye nag dañ koy yàq maanaam da gis koo xam ne ki day bokk ci daayira bi bokk ci këlëb bi bu daayira bi dem àllarba mu mu dem bu ñuy joxe ji mu joxe ji bu ñuy ànd mu ànd bu ñu gàmm ji mu dem bu ñuy màggali mu dem waaye nag bokk na ci këlëb bi bu ñuy def kole dara beeg eh, ngoon geek ñoom seen yooyu ah ba tey it nag mu bokk buy dem fële solu garam bu bam ba tagalu musóoram la waaye bu ñëw fii solu robb rek su boobaa yaa ngi def waaye yaa ngi yàq xalatu amalan saalihan moo tax léeg nga woor ba ngoon mun la dàqal koor gi nga dem ci àll ba di dàq koor gi ba koor ga dem nga ñibbisi toog man jaa ku indi bil xasana falahu dana am xayrun min xaa lu gën lam indi waxum ñoom nag min yow ma isin ci tiitu bis boobee aminuun ñu fa am kóolute lañuy ñuy doon bisub yamal xiyaam ci tiitaangi la ñoom duñu tiit ñoom ñu nga xam ne ñëw indi lu baax wa man jaa bi sayyi'a ku indi bokkaale wa man jaa ku indi bi sayyi'ati ci bokkaale fa kubbat dañuy këpp wujuhuhum seen kanam ya fi naari ci sawara yàlla ñu ca musal ku dem foofa yóbbu fa sayyi'a muy bokkaale ibnu abbas moo ko firee noonu mu ne as-sayyi'atu al ishraaku billahi wa man jaa yawma alxiyaamati musii'an laa xasanata lahu aw mushrikan billahi fa innahu yukabbu fi jahannama ala wajhihi mankuusa wa yulqaa fiha maqluuba noonu la ko ibnu abbas firee ca téeréem ba ca tafsiram ba tabarkal yàlla mu ne hal tujsawna ndax fay nañu leen illaa lu dul maa kuntum taamaloon la ngeen doon def la ngeen doon def dong lañu leen fay tabarkal moo tax suñu dee jullee néew ilimaan teg ko ñaari baat yi la koy wax su kàbbaree ba noppi kàbbaraat ca ñetteelu kàbbar ba mu daan ne allahumma innahu abduka wabnu abdika wabnu amatika bu fekkee góor lay jullee kaan yashhadu an laa ilaha illa wa anna muhammadan mu teg ca ñaari baat yu am solo allahumma in kaana muhsinan fa sid fi ihsaanihi wa in kaana musiihan fa tajaawaz an sayyi'aatihi mu ngoog yàlla sa jaam bii tëdd fii tey daana def yi ñuy fekke ak yuñ daawul fekke in kaana muhsinan bu fekkee yim daan def muy rafet loola ci la continué woon ba tey jii ñu ngi lay ñaan nga yokkal ko ko wa in kaana musian bu daan def nag lu ñaaw luñ daawul fekke ñun ak ah, ñu ngi lay ñaan nga baal ko loolu la ñuy wax daal dina gaañu jël leen néew bi denc yàlla mu ne ko hal tujzawna illa ma ta taamalu ndax yàlla dina fay kenn lu dul jëfoon waaw ki indi lu baax mu jox ko lu gën lim indi ki indi bokkaale mu këpp ko sawar mu ne nag ndax man tooñ naa tooñuloo kenn jalla jalaaluhu wa azza kamalu innama li fi nekk umirtu digal nañ ma mu ne na nga leen wax loolu digal nañ ma an abu dama wéetal rabba haasihil balda borom dëkk bii ñu dëkk tey rabba haasihil balda borom dëkk bii ñu dëkk tey fal yaabudu rabba haasal bayt allazi at'amahum min ju' tabarkalla mu ne ko kon in na nga wax ne innama umirtu digal nañ ma an abuda ma jaamu mu wéetal rabba haazihil balda borom dëkk bii alladi dëkk bii nga xam ne xaramaha daf koo ñag daf koo ñag daf koo def mu nekk lu ñu araamal lu kenn waru fee tuur deret kenn waru fee tooñ kenn waru fee rëbb ñax gu tooy sax kenn waru ko fee dagg te soxla woo ko tabarkalla allazi xaramaha walahu yàlla ki nga xam ne moo moom kullu shay'in mépp mbir wa umirtu na nga wax nit ñi ne digal nañ ma an akuna min al muslimina ma bokk ci jullit yi ma bokk ci muslimoona yi suratu nam li aaya juróom-ñeent fukk ak ñaar wa digal nañ ma ba tey an atluwal quraan may jàngal quraan di ko jàng di ci jaamu yàlla di ko jàng di ci waaraate di ko jàng di ko teg ci nit ñi di ko dégg fa man ihtadaa ku ko dégg ba jub nag fa innama yahtadi li nafsihi boppam la jubal allahu akbar fa man ihtadaa ku jub dégg ko fa innama di li nafsihi boppam la jubal wa man dalla ku sànku nag fa ne ko ah, yow de sànku nga innama man nag ana minal munzirin man ci waaraatekat yi dong laa bokk waar naa la sa jubadi nag yow fii boo ko jàngee da yëg ne nit yàlla may na ko ixtiyaar sañ naa tànn walla boog am na kàttanu tànn njub waaye am na kàttanu tànn ndëng waaye nit ñi ñaari dañuy dëng ne yàllaa ma ci xiir jub ñu ne la félicitation waaw ñaare léegi ku def njàmbaar ñu ne la félicitation ku dëng na ñu ne yàllaa ko ci xiir inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yooyu du noonu fa man ihtada ku jub fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa qul innama ana min al moo tax tabarkalla isaatu dunia sawtul xalb bokk ci programme fexe ba nit ñi dégg alquran bu na ko déggee ba noppi bu ñu àndee ñun ñépp ne yàlla yaway yàlla ah ñu am ci ngërëm ñun ñépp ñu nag kilifa gi benn base mi samp rajo beeg ñi ci nekk ñëpp bu fekkee wax nañ ko nag ba mu jeex tàkk te taxul ñu ànd ñun ñëpp na yàlla yàlla su boobaa nag tabarkal la jaani gaañ ñi wàcc ña ca def seen jaan yéeg waxul neel alhamdulillah mu ne kon nag yow neel alhamdulillah moo taxit waxul alhamdulillah tax na ba léeg tabarkal la ngeen dégg fii alhamdulillah alhamdulillah ba mu takk lool lu tax waxul na nga wax foo man di tollu alhamdulillah ndaxte kat lii la yàlla defal jar na alhamdulillah yow moomu toog sa kër te bu ñu daan tafsir alquran nga dugg oto dem ba soo sookoon fekk suñu góor ga Ahmed dem tabarakalla radiallahu anhu toog ca wetam mu firil la ko tey nga toog ubbi sa rajo ñaari tafsir nag boo waxuma ne ñoo bokk waaye nga ciy mën a fore ab baat war ngaa mën a wax ne alhamdulillah naka noonu yow mi daan rañaan dem ba jo ba jam ba Saalum jàngi fiq nga toog léegi ubbi sa rajo dégg ñu waxal la fiq ah war nga ne alhamdulillah ki daan dem ba Azhar jàngi fa wàllu taarix ak ñoom seen yooyu tey nga toog ajjuma ubbi a Cheikh Ahmad Tidiane bi tey nekkal la ca war nga yow it wax ne alhamdulillah kon waxul na nga wax yow yonent bi alhamdulillah mu ne ko ndax la mu ne lu ne defal naa la ko lu ne defal naa la ko nit ñi yaa ma ci gënal sa xeet wee ma gënal ci xeet yi réew mi nga ma dëkk nga dëkk ma gënal ci dëkk yi tabarkàlla sa diine jee ma gënal ci diine yi alxuraan jee sa téere bi ma gënal ci téere yi kon nag waqul alhamdulillah ni ma la jàngale jàngalewuma ko kenn ñi ma la booleel boolewu ma ko ñenn sa feeñ jamono rafet sa génn jamono rafet ñi nga yar ñépp yaru waqul alhamdulillah bi nga fiy jóg li nga teg ci loxo loxoy gaay ñu sàmmal la ko di ko jox joxalee ba mu àgg fa mu war a àgg waxul na nga wax alhamdulillah sa yurikum ayaatihi dinaa leen wan dana leen wan moom yàlla ayaatihi màndarga yi tax ba mu tànn rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dina leen wan ayaatihi màndarga yi tax ngeen xam ne yàlla rekk ay yàlla dina leen wan ayaatihi yi tax ngeen xam ne diine rekk ay diine fa taarifunaha da ngeen ko xam bu leer wama rabbuka sa borom nekkut nag bi zallaamin wama rabbuka sa borom nekkut nag bi xaafilin di sàggane amma taamaluuna ci li ngeen doon saar bi ñu nekkoon moo nekkoon suratu namli màkka la wàccoon nekk juróom-ñaar fukki aaya ak ñett di saar boo xam ne bii pas-pas la doon jàngale wéetal yàlla gëm ne mooy yónn yónant gëm ne ku dee da nga dekki saar bi toftaloo woon ak benn saar bu ñu tuddee shuara moom nam li nekk diggante shuara ak xasas nga xam ne ñoom ñett mën nga ne ñoo bokk benn mën xëj saar bii biñ ko tàmbalee dégg ngeen ci xisa yonent yi alayhi salaatu wasalaam yàlla tënk ko xisab Muusa xisab Saalix xisab Lóot ak kenn ku nekk la nga xam ne dal na la ci sa diggante say mbokk xisab Daawuda yàlla teqantal ko mook doomam ja Suleymaan ak xéewal yaleen yàlla tabaraka wa taala xéewale ci wàllu nubuwa gum leen defal tudd ca xisab Suleymaan ak jigéen ji ñuy wax Balxiis nekk malikatu saba te Suleymaan wooxoon ko ba mu ñëwee fekk si ko ci diina ji ak itam sa bii di loo xam ne yàllaa ngi ciy jàngale di ci leeral ne buur walla kilifa gu mën a doon roy ci Suleymaan lu la war la ndax di sàmm li nga xam ne mooy sa njaboot Suleymaan danaan xeeñtu njaboot ga di seeti picc yi nan lañ fanaane sanqale ñu nu ñu yendoo ndax ŋar yi añ nañu ndax yemb yi lekk nañu tabarkalla ba Musaa yi ñoom ak ñoom seen ñooñu la ca xewoon xew ca ak ñoomeen xorondoom lenn lu nekk Suleymaan ma ngi ko doon seet ba mu yëgee ne am na ko wedd yàlla ci kaw suuf mu bind ko leetar di waxanteeg moom ba dugal kooku ci diini ja mu ne ashhadu an laa ilaha illallah wa anna Suleymaan rasulullah saar bii di suuratu li moom la jeexal ci kàttanu suñu boroom tabaraka wa taala war a dugg ci beneen saar mu di suuratu alxasas suuratu xasas mooy suñu ñaar fukkeelu saar ak juróom wala boog fanweereelu saar ak juróom-ñett wàcc màkka ngeen baal ñaar fukki juróom-ñett wàcc màkka nekk juróom-ñett fukki aaya ak juróom-ñett nekk saar boo xam ne moom it aqida lay jàngale mu di wéetal yàlla gëm ne mooy yónni yonent yi gëm ne ku dee da dekki seenu tëralin ñoom ñetti saar yi muy namli ak shuara ak xasas ñoo bokk nu ñu wàcce ñoo toftaloo moo tax kii daa wàcc kii wàcc kii wàcc saar bii nag moom ci wàllu pas-pas lim ciy jàngale bu doon waxinu tey danga naan tawxiid la boo xam ne bii dañ koo pratiquer du théorie rek mixwaru saar wi mu ngi nekk ci diggante li ñu tuddee alxaq wal baatil ak itam mantiqu al wa tuxyaan muy tëralinu nangoo topp yàlla ak tëralinu weddi ko mu indi fi benn xissa boo xam ne bëri la bu dox diggante jundu rahmaan ak jundu sheytaan muy soldaari yàlla yi ak soldaari seytaan yi bu xeex nga xam ne du xew yi mukk yàlla indi ko ci ay xissa ba ci njëkk di xissab tuxyaan bil xukmi wa sultaan mu indee ko na moo doon acteur bi nga xam ne banu israil lu ne teg na leen ko rendi na seeni doom doom ju góor ju ñu am mu rend ko ba muy fukki junniy doom yu góor ak ñaar lépp ngir bëgg a yoon yonent yàlla Muusa alayhi salaam jigéen ju ñu jur nag mu bàyyi fa ndax fas yéene du du folliku mukk yàlla tabaaraka wa taala tax mu diir mbagg ko daal ne leen maa alimtu lakum min ilahin xayri man firaaw na xamuma jenn yàlla ju ngeen am juma moy mu wax leen ko ñaareel bi muy sa boo xam ne dafay indi wàllu kowe ku bukkut ak kowe firaw na ndax firaw na kowe gi mooy kowe pouvoir ak ndomba tànk kowe geneen gi nag mooy kowe alal ak koom-koom mu indi ci Qaaruun ak nitam ña ñaari xis yi benn bu ci nekk yàlla di ci bàyyiloo xel doomu aadama ku yor am am ku nekk mun la bàyyil xel Qaaruuna bul mel ni moom ku am ndomba tànk mun la bàyyil xel na moo tax saar bi li mu koy indi nag mu njëkkee xissa bi gën a doy waar muy xissa na ak dooleem ak ya ca aju nga xam ne bi mu juddoo na mu def moo di yàlla ilham yaayam yaayam jël ko sànni ko ci dex gi dex gi yët ko na dana waxtaane moom saar bi bu muusaa matee góor ak itam ka muy xeexal ca biir misra baray ko ak itam gàddaay gi mu gàddaay dem Madyana ba ay bu may ko doom doomam muy soxnaam ak it na ko yàlla waxee na ko na ñëw dellu fa nga xam ne mooy fa mu jóge woon muy misra ngir mu woo ki nga xam ne mooy na mu bew moomi ci diinam ji bu ci jógee saar bi dina indi xisab Qaaruna ak itam li nga xam ne moom la indi ci wàllu tëralin ak li meloom ci mbir moomee buy tëj da koy tëjee leeral ñu yoonu texe ak yoonu texee di ku dog yoonu texe yàlla mën laa texeel ku dog yoonu texe di nag la foofu du baax ñu tuddee saar bi xis xasas ndax xis yi ci suñu borom tabaraka wa taala ñetti li ak itam yi nga xam ne moo ci xew Eh, ñaan suñu borom tabaraka wa taala bu ñu fi dajee eh, ajuma ji di ñëw ci kàttanam ñu tàmbali ko moom suratu eh, alqasas tabarakallah tabarakallahu ñu war a ñëw tey ci suñu ñaar fukkeelu saar ak juróom-ñett ñu tuddee ko suratu alqasas suñu borom tabaraka wa taala nar cee nettali yonent yàlla Muusa ak firawna waaye suy jeexal mu nettali ci mbirum xaaruna dikk na ci musnad imam ahmad ca jukki bu njëkk ba xatum ñeent téeméer af ko juróom-ñeent mu ne al imam ahmad ibnu hanbal rahimahullah nee na ibnu adam nettali na ko wukay nettali ko jële ci baayam jële ci baayu isxaq ñu jële ci maadi karib mu ne dañoo dikkoon ci abdallah laaj ko ne ko nañu jàngal taasiin miim bi nekk ñaari téeméeri aaya mu ne moom day mokkalu ko waaye mën na leen a yóbbu ci koo xam ne da ko jànge ci rasulullahi ñu ne ko mooy kan mu ne xabaab ibnul arat ñu dem ci xabaab mu jàngal leen ko ba mu jeex saar boobu mooy taasiin miim suratu alxasas ñetti lañu taasiin miim ñaar yi benn bi taasiin kese ñoom ñëpp ña ngay jàng nettali benn aaya wala moom lañuy ñuy firi muy tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq wa innaka la min al moo tax soo seetloo ku ci wax taasiin wala taasiin miim tilka ayatul kitaabil mubin diggante yooyu dafa niroo yàlla mi ngi ñëw ubbi saar bi mu ne bismillahi rahmaani rahim taasiin miim yàlla moo xam lim ci nam noonu la ko borom firikat yi di fire tilka xaraf yi nga xam ne nag yàlla moo xam lim ci ndam ayatul kitaabi mooy màndarga mi lay won ne téere baa nga jóge fa yàlla almu mubiini téere bu leer bii waxin wii téere bi waxin wi day tekki ne ma nga jóge fa suñu boroom tabaraka wa taala natlu alayka natlu dañu lay jàngal dañuy jàng nga dégg nga jàng jullit yi dégg natlu alayka min naba'i muusa ci xibaari muusa wa firawna ak xibaari firawna naba mooy dañoo bëgg a détailler mbir mi tey xissa bi tey yàlla du ko def ci xibaar léegi naba la koy def tàmbalee ca ba Muusa juddoogut ba ni na dee min naba'i Muusa wa na ak Firawn na nag mooy ñi daan falu ci Misra ginnaaw ba Yuusufa demee jamono Yuusuf booba Firawna xewagut bi Yuusuf demee ginnaaw Yuusuf la ay Firawnay door a xew ku toog ca jal ba tudd na moo tax alxuraan lu yéeme la sourate Yuusuf la xew xaw bay bari bari doo fa dégg ñu tudd fa baatu firawna azizu misra rek ngay dégg loolu ñuy jàng ci histoire boo ko laajee ñun la waawaaw dinaa la jàngal min naba'i Muusaa wa Firawna bil xaqi ci dëgg ci dëgg ndax nettali bi yàlla bokkut ak nettali bi nit moo tax suratu alqasas xissab nit nit su lay nettali mbir léeg-léeg mu dool toll ca fenn moo cay yokk yëfi boppam ndax bëgg mu neex wala mu wàññi ca lum rusa wax bari na kuy nettali histoire àgg ci foo xam ne doo ko wax ndax boo ko waxee yët jóg bari na kuy nettali histoire àgg ci foo xam ne fii soo soo ko waxee noonu du xoromu nga yokk ca leneen suñu boroom moom mu nekk alwaahidul qahaar ragalul kenn la lu muy wax lu nekk xam a tax ak wane jàngale moo tax moom da koy waxe na mu amee kon nag bil xaqi ñaar ba kuy nettali ku nekk léeg-léeg nga gis kuy nettali lu mu fekkiwut te naan maa ko fekke yàlla moom daa fekkee démb fekke tey dana fekke suba ak ginnaaw suba ku dul yàlla fekke woo démb tey nga fi ñëw suba doo ko fekke wa firawna bil xaq ñu ngi koy nettali nag li xaw men ci nit ñoo xam ne yuminuun di dañu mu nekk alwaxidul qahaar ragalul kenn tabarkalla lu muy wax lu nekk xam-xama tax ak wane jàngale moo tax moom da koy waxe na mu amee kon nag bil xaqi ñaar ba kuy nettali ku nekk léeg-léeg nga gis kuy nekk lu mu fekkiwut te naan maa ko fekke yàlla moom daa fekkee démb fekkee tey dana fekke suba ak ginnaaw suba ku dul yàlla fekke woo démb tey nga fi ñëw suba doo ko fekke wa firawna bil xaq ñu ngi koy nettali nag li xawmin ci nit ñoo xam ne yuminuun dinañu gëm suratul xasas kon aaya ñett mu ñëw nag nettali ñu ci tàmbali bi mu présenté ñu kan mooy Firawna nettali bu neex la te it ki koy nettali ku mën a nettali la muy jalla jalaaluhu mu ngi ñuy indil nag léegi kan mooy na ndax benn tëral la boo xam ne bi tabaarakàlla am na aw gaay yu ko séq na ca la bokk am na ku ci ñëw nar a bokk mu di Muusa ñoo ñépp mu nar leen indi waaye balaa leen indi day am fu mu jaar mu ne kon kaay leen ma wax leen kan mooy firawn inna firawna mu ne firawna li wóor mooy ala fil ardi dafa bew fil ardi ca misra dafa bew fil ardi ca ku bew la woon loolu mooy jik sikkam bu njëkk inna firawna ala fil ard sikkab firawna bu njëkk mooy dafa bew loolu la yi di wax dafa maanaam baatu réew maanaam istakbara wa tajabbara wa jaawaza al fi tuxyaan fi ardi misra sikkam su njëkk sàngo wa jaala ahlaha mu def waa misra chiaan ñu nekk ay parti ñaareelu sikkamu nga ko wa jaala mu def ahlaha waaisu an ñu nekk ay parti ay chia maanaam baatu chia mooy par parlo ñii ñoo faral kii noonu la alxuraan di tuddee baat bi mu def kon nit yi na ya firawna daf leen def ñu nekk ay chia ay parti di par parparloo ku ne naan diw laa faral mu tas leen loolu tabarkalla xew na nga xam ne bu bu bu bu gaa yi bare tabarkàlla rek yëf yi deme noonu moo tax mu séddale leen bu leen seddalee ay ay parti nag moom Firawna dina ko may doole tuuti ndax coow lay nekk seen digganteeg ñàkk dëppoo ñàkk déggoo gaag xëccoo gaag yu demee ni ki yooyu na noonu la defoon ñetteelam yastadifu taifa minhum yastadifu day noggutu day noggutu taaifatan mbooloo minhum ca ñoom noonu mu leen def siyaan ñu nekk ay ay groupe di parparloo dafa am groupe boo xam ne daf leen di noggutu di leen ëpp doole ñoom ñoo féetewoo di ko jaxaseel beton ak simaak ak fer yi muy tabax mu di ko tabax ñetteelu sikka ma ñeenteelu sikkam yu sabbihu abnaahum day rey seeni doom yu góor ndeysaan xale yu góor yi amutoon misra bariwutoon ku jur góor rek firaaw na rey ku jur góor rek firaaw na rey rek ndeysaan ba rey fukki junniy liir ak ñaari junni ci diir bu gàtt mooy ñeenteelu sikkam wa yastaxyi nisaahum mu fay déeg jigéen ña du rey jigéen jigéen moom daaw leen rey ndax xam na ne li koy folli du doon jigéen ndax jigéen ñaare du folli bariwut moom bu tàccoo rek mbiram mbaax bu amee lum sol lu rafet mbiram mbaax tabarkalla ak yu deme niki yooyu moo tax góor ña la doon rey di fa bàyyi jigéen ña lu am solo la juróomi sikk yi la yàlla ne moo na ci firawna ala fi l ard wa jacala ahlaha chiaa yastadifu minhum taifatan minhum yusabihu abnaahum wa yastaxyi nisaahum lii juróomi sikk la yum am bu yàlla di wanee lii nag ba naqar wi jàpp ci la lay door a moom programme am moom yàlla bi mu tëralal firaaw ndax sikk yi yëpp benn baaxu ci nga bàyyi xel ci it nag ne yonent bi yàlla yónne bu nekk boo ne laa ilaha illallah day am leneen lu la tax a jóg suñu mbokk al ustaas Ahmed Dame Ndiaye la day wax ne foo fekk yonent yàlla Shuayb bu waxee laa ilaha illallah ba noppi pinc ma foo ko fa ci rek wàllu koom-koom lay wax yonent bu nekk noonu la naka noonu yonent yàlla Muusaa mii foo ko fekk bu nappee ci laa ilaha illaa inni inni rasulullahi foo ko fekk ci rek wàllu politique lay wax moom yonent yàlla Muusaa lu tax nag firaaw na doon rendi xale yu góor ya di fa bàyyi jigéen ñi moo ne mu fassiroon yi dañu ne li taxoon mu leen doon rey dafa mësa tëdd benn bés mu géwantu aw sawara wu mag wu yanj jóge baytul maqdis ñëw ba misra lakk mboolem ku bokk ci copt yi ci banu israil waaye waa lakk copt yi bàyyi fa banu israil mu daldi laaj ñi nga xam ne ñooy def wàllu buxaaba ak ñi nga xam ne ñoo jëm ci wàllu gisaane rosko bi maanaam ñii wane ne nangam horoscope bi nee na nangam wala biddiw bi nee na nangam lu laa bëgg wax bi mu laajee gisaanekat yooyu ñu ne ko sawara wi day li muy teg ci mooy dafa am liir bu nar a judd bu doon góor boo xam ne sa ngóor gi ci loxoom lay yàqoo sa alkande ci loxoom lay jaare mu ne ah, yéen kon da wax boroom xam-xam yi jar a neexal daal jóg nag léegi neexal leen ne nag léegi xale bu góor bu juddooti nanu ko rey maanaam ku fi juróoti doom muy góor rek na dee ñu jox nag aw gaay yu bari ay xeeti ngànnaay jigéen ju ñëg ne yaa ngi ëmb ñu bàyyi la xel ku rey indi def rapport ñu am luñ la jox liggéey bi continuer ñu reen rek yàlla ne nii la noonu def mu dema dema dem ba mbir mi jéggi dayoo assemblée nationale daal di koy wooxaat ne ko firaw na rey gi ëpp na dañuy téye sa loxo ñu daal koy wateel benn loi bopp su rayee su rayee ren su déwénee du rey kenn mu am mel ne at rëyut rek Haaruna ci la juddu daal di raw meneen at mi muy rey nag tabarkàlla ca la ki ko nar a folli juddu muy kooku ñuy wax njàmme muy Muusa ibnu Imran yàlla nee na innahu firawn kaana min al mufsidiin dafa bokk ci yàqkat yi ku mën a yàq la ndax mbokk yi fukki junni liir ak ñaar ku leen rey rey nga wàlliyu rey nga député rey nga gouverneur rey nga ministre rey nga ustaas rey nga ilima lu ne rey nga ko fukki junni liir ku leen rey lu ne rey nga ko kon kenn dàqu laa yàq te loola bu ñëwoon misra fukki junniy liir yooye ak ñaar bu ñu judd woon misra xëy na la teewoon nag ña gone ya mën koo def ndax li woon a ngi fi ñu ko def na woon a fi nekkul kon rey ay liir du xalaat rey ay liir du xalaat te it bu mbir mi xatee la ba ñu ne liir yi xajuñu fi ñoom nañu waroon def mooy ne mag ñi yéen comme mos ngeen xajal leen liir yi mosagut ñu mos loolooy démocratie waaye ñun mos nañu liir yi ñëw dinañu mos ñu ne du ngeen fi mose a ah, déedéet li doon yoon mooy ñu ne liir yi yéen ñëw leen mos ñu seet nag mag ñi nga xam ne tabarkàlla kii ñu ne leen yéen man ngeen a noppalu ndax mos ngeen ba yàlla mu ne kooku mooy firawna wa nuriidu ñu bëgg ñun yàlla wa nuriidu ñu bëgg ñun yàlla baatu ñu bëgg ñun yàlla te waxul wa uriidu ma bëgg man yàlla dafay tekki ne mbir mi duñ ci seetaan yàlla kese déedéet firaw na wàcc fa mu toog yàlla su ko neexoon fa toog lay ngelaw ngelaw su sedd firaw na faatu waaw waaye day day wone ne du moom yàlla ci boppam mooy sol aw dàllam ak si ca firaw na ko wàccal sées bi Muusaa toog ci wanu riidu ñu bëgg waaw jamu la fi jëfandikoo wanu riidu ñu bëgg tabarkalla wa nuridu ñu bëgg an na mun na ñu xéewal ala alladina ña nga xam ne dañ leen doon noggutu fil ard ci suuf loolu mooy nën nënd bi mu njëkk a samp mooy ñu doon noggut ci suuf la yàlla bëggal xéewal wa nuridu an na mun na ala alladina stud'ifu fil ardi dañoo bëgg ñu na mun na ñu xéewal ala alladina ca ña nga xam ne ustudifu fil ardi ña leen doon noggutu ci suuf yàlla mu ne ñañ doon noggutu la bëgg la bëgg tabarkàlla xéewal al mustadaafuuna min bani israil waaw ñooña la yàlla bëgg defal xéewal muy benn wa najcalahum ñu def leen aimmatan ñu nekk ay kilifa ñoom ñooñ ñu doon noggutu di leen néewal doole mel ni ñoom bokkuñu ca misra mel ni ñoom ñu fa kàddu mel ni ñoom tekkiwuñu fa dara xanaa lañ fay nekk mooy jaxase béton ciment rek ngir firaw na du leen fay weer du leen fay lan yàlla mu ne ñooña laa bëgg a génn aimatan ay kilifa allahu akbar ñaar wa najcalahum alwaaricin ñu def leen ñu féetewoo misra wa najcalahum alwaaricin ñu def leen ñu féetewoo misra bi maana waaricina li mulki firawna wa qawmihi yarisuuna mulkahum wa yaskunuuna masakinahum baada an kaana alqibt asiyaada misra wa aziataha bi nga xamee ne copt yi ñoo nekkoon ay sang ci misra tey nag banu israil la yàlla ne da ngeen jël palaasu copt yi toog fi nga xam ne foofu lañu ñu toogoon di def li ñu doon def muy ñett ñetti ndënd wa nu makkina lahum ñu jàppandalal leen fi ard ci suuf si muy ñeenti ndënd nu makkina lahum fi l ard albaydaawi mu ne aslu tamkiini an y an tajcala li cheyi makaanan yatamakkanu fiihi suma stucida li tasliit wa itlaaqi al amr albaydaawi jukkib ñaareel xatum juróom-ñett fukk ak juróom-ñett mu ne nu makkina lahum tamkiin mooy jàppandal mooy nga defal nit ki barab bu mën a tooge wala barab bu mu mën a waaje wala barab bu mu mën a defe ay mbiram ba bu ñu nee te jàppandal na rek mu di wax nañ lépp ñeenti mbir yooyu bokk na ci yàlla bëgg juróomeel ba wa bëgg wala wa nuriya ñu wan ngeen baal ma wa nuriya ñu wan firawna wa hamaana wa junuudahuma minhum maa kaanu yaxzaruun wa nuriya ñu firawna firawna wa haamaana ak premier ministre ba muy haamaan wa junudahuma ak seen soldaar ya kaaraange gaag doole gaag lépp ñoon leen minhum ci ñoom maa kaanu yaxsaroon lañ doon daw suuratul qasas aaya juróom suuratu al qasas juróom benn lii la yàlla ne moom moom la bëgg wax na la sikkas firawna nee na firawna dafa bew xàjjale réew ma di noggatu aw gaay di rey doom yu góor ya di fa bàyyi jigéen ña ñu ne waaw mu ne man nag yàlla li mooy sama programme dama bëgg xéewal ñi ñuy néewal doole def leen ay kilifa féetale leen misra ñu moom ko léegi am fa ak jàppandal di fa tëral lañ bëgg a tëral waaye juróomeel bi mu won firaaw naag xëmaan ak seen mbooloo ya lañ doon moytu allahu akbar ndax xam ngeen ne kero bi Muusa di jóge kër yaayam di soññe na liir la boo xam ne munta yorub lañset waaye Firawna lam yor jamono yooya kenn xamul nu mu ci ay ngànnaay waaye ngànnaay yooya la bari bari mbokk yi nañu bàyyi xel bu baax ci nettali bi bu liir bi ñëwee dina faj loolu nga xam ne moom la gaaye di bañ moo tax nit doomu aadama bu góor ak bu jigéen bu la yàlla sàkkee ngay jigéen mu defal la nga nekk ku wér am wér gi yaram di nit kuy am doom danga war a lu bàyyee yàlla sa bopp tey am ay doom am doom yu baree baree bari mën naa am nga am am Muusa waaw am ay doom yu bari mën naa am nga am am Muusa te mbokk yi kër gu Muusa juddoo rekk dagg mu njaam ya fa nekk waaye nag bëgguma doom yu bare rek benn benn ñaar loolu wóorut waaw ndax am ay doom yëpp nekk firaw na baaxut am ay doom yëpp nekk firaw na baaxut am ay doom mu am ay xëmaa nekk firaw na baaxut ay fàq maa yooyu ah, da ngay am doom yu bari boo ci amee benn Muusa tabarkalla mu not firaw na yëpp ak xëmaan yëpp tabarkalla yàlla ñu yàlla dimbali léegi kon yàlla wax na loolu firaw na nag ma ngay rey ba benn at nag bi ñu ko wooxee ne ko nag léegi wàññil rey gi mu ne léegi may na leen kon fukki weer ak ñaar dina ko noppalu door a tàmbaliwaat rey muy noppalu rek Haaruna nee nañu ci atum noppalu mi la juddu ndax moo njëkk a judd Muusa ndax Muusa njëkk a judd lool nag tabarkàlla nettalikat yi ñoo cay werante li nga xam ne nag mooy at mi muy rey nag Muusa daal di ciy juddu yaayu Muusa dégg ñiy seet liir yi mu jaxle xam ne bu ñu gisee liiram bi rendi ko te jigéen tabarkalla ñu rendi doomam muy yëg lu métti la ci moom ba jigéen di baax léegi sii nag bi nga xamee ne adduna mel ne ni mu mel ci nga gis jigéen am doom di càkkal doom ja pexe waaye ñàkk ab yar la ndax lay tax mu am doom fam ko amee di ko rey loola la warutoon a def xelam waru ci woon a nekk yaayu Muusa daal di am doomam jii di Muusa amagul nag tur ba mu ko amee waa kër firaaw na ñoo ko tudd moom liir la te liir daawul am tur nen ni lay tudd wala liir ba mu ko defee ba mu demee kër ñoom mu kër ñoom firaaw na lañ ko wutal tur wutal ko muu ak saa muu mooy ndox saa mooy garab ñu ne liir bi ña fu ngeen ko fara ñu ne ca diggante muu ak saa ca diggante ndox maag garab ga ñu ne kon nag liir ba ca ndox maag garab ga waaw muu saa yàlla mu ne wa awxay naa ñu wax yu ilaa ummi muusa ca yaayi muusa an ne ko ardiihi nàmpal ko nampal ko ibnu abbas nee na wax yu ilhaam la ko def wax yu ilhaam mooy yàlla waxu ko ci la ci noppam waaye daf ko ca xiir ci xolam mel ni yow mu jóg rek ne ah nangam ji di ko def war na baax jóg def ko rek mu far baax loolu ibnu abbas loolu la wax mu xaatil mu ne axbaraha jibril bi zalik mu ne jibril la ñëw ne ko wutalu kees def ci sa doom ji teg ci ndox mi bi mu ne nii nga xam ne moo di waxi mu xaatil yi moo di wax yu ilaam waaye du ilham ñoom ñëpp daal nii lañ ci wax ba mu bari lool ñu ne nag ndax yonent dina wax ak wala boog ndax malaaka dina wax ak ku dul yonent ñu ne waaw waaw ndax imran ibnu xusayn ab saxaaba malaaka yi daanañu wax ak moom falam yakun nabiyan te nekkutoon ab yonent wax ji jëpp nag lu ci gën a yaatu boo ko bëggee dangay dem ca tafsir al bi jukki fukk ak ñett xatum ñaari téeméer ak juróom fukk wa naa ñu wax yu ilaa ummi Muusa an ne ko ardiihi nàmpal ko nampal ko balaa dem looloo tax léeg-léeg ndeysaan da nga daan jóg bëgg tukki fu sori mag nga samp nga kër sa yaay yëkkati weenam jox la nga màcc te dem ñoom fii lañ ko doon roye waaw ndeysaan léeg-léeg nit daan bëgg a dugg néegu góor yaayam génne ween wa jox ko mu màcc te dem waaw ñoom daal fii lañ ko doon roye la ndax <coughs> def ko yeneen yàlla daal nee na ne sa doom ji balaa dem na nàmp mu jël ween wi jox ko mu nàmp xam naa tey bu doon jigéen ñi tey ñi biberon lañ koy jox ak am solo sa doom ji nga jox sa ween wi sa tàngooru yaram laal ko bu demee ci aw jigéen balaa nanguwaat weneen yaram foofu ay secret fi nekk ndax misik bi fëgg ci xolu yaay doom daf koy xàmmee ci yaayam tàngooru yaramam wi koy uuf noonu gis nga gone yi nga xam ne kenn uufatu leen tabarkàlla ni ko professeur Assane gone yi nga xam ne kenn uufatu leen nga xam ne mësatuñ neexitu uuf duñ am ak laabir mukk ñoo mësina yam gone yi nàmpatul seen weeni yaay xanaa di nàmp ay ay ay nag soowum nag nga namp ba suur géex rek wala boog nañ rek mbaa nga daan doom ju meewum nag la namp ba géex su naññu lit daane ndax am xel mu gàttati nax gone yii di namp soowum xar ñoom ñépp daanaka ay xar lañu muusatuñu yeewootuñu la kenn mënatu leen a jàngal examen yi tabarkalla xam naa yàlla nañ am mi ñoom ñépp waaye daal doy na waar lool gone yi namp meewum bëy gis nga ko it kenn mu leen a toog loo nga ca mbedd ma tey duñ sol lu gudd ni bay di soloo rek la ñuy solo mu gàtt lool tabarkàlla ngeen baal ma waaye seetlu leen ko rek seetlu leen ko rek tabarkàlla yu am solo la moo tax yàlla moom ne ne yaayu Moussa balaa doom jee dem na nàmp ardiihi nàmpal ko yaay ji yëkkati wenn wa jox ko Moussa macc macc daal di xool yaay ja ndeysaan mu daal di tàpp-tàppal daal di defar yàlla ne ne ko mënoon ngaa tëral salal mënoon ngaa tëral salal ndax man mi koy sàmm ca firaaw na mën naa koo sàmm bi mu nekkee fi yow waaye soo fit du ko dékku gis nga bu fekkoon fiqatu fiqatu piir ma nga ca yaayu Muusa bu raw bi ne ci bi mu koy sànni ci dex gi kon mënoon na koo ñàkk sànni ndax suñu borom mënoon na koo sàmm fi mu nekk te du ko yóbbu ca ca dex ga waaye nag doomu aadama ñaare ci fiqatu billaahi dafa doy waar loo xam ne lii ñëpp mënuñu koo déggoo ni nga xam ne la war a toll ne kon yàlla da koy wax rek nàmpalal te ko ci lal bi dinaa ko sàmm tabarkàlla kon bi nga xamee ne nee na ko nàmpal ko fa isaa xifti alayhi soo ragalee fa alqiihi fil yammi sànni ko ci jax gi wala taxaafii te bul ragal wala taxsanii te bul jàqit inna raaduhu ilayki daañu la ko delloosi wa jaa'iluhu daañu ko def it minal mursalina mu bokk ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla yónni alhamdulillah fa isaa xifti soo ragalee alayhi soo tiitee alayhi ci léer bi gis nga baatu soo tiitee da nga ciy dégg soo tiitul nag bootal fa isaa soo tiitee soo tiitul nag kon mooy bootal bootal fa isaa xifti alayhi fa alqiihi fil yammi sànni ko ci dex gi dexu niil ga wala taxaafii wala taxsanii allahu ba lu tax inna i ilayki daañu la ko delloo si yow mi yaayam muy benn danañ delloo si sa doom ji balaa yàgg ay fan yu néew danaa la ko indilaat ci kër gi man yàlla wa jaa'iluuhu min al mursalin daañu ko boole ci yonent yi mursaloon yi mu ne ko waxuma la delloo si ko waaye dana am ñun fukki at jëm kaw sa doom ji dana jot buntu néeg dina nekk yonent ah yaa ji xelam dal mu daal di nàmpal ba mu suur defarloo menuisier ba kees ga ba du seen ndox ci biir mu dugal ko ci biir laltaale ko ci yi yére tabarkal def ci yépp daal di fab liir ba def ca daldi teg ca ndox ma liir ba wuti kay seet liir yi pour rey leen moo tax yàlla mën a sàmm kii seet liir yi pour rey la ngir rey leen ba rey fukki junniy léer ak ñaar ñoom moom la yàlla jël liir bi bi mu doon seet yët ko gis nga boo amee benn waay buy sàcc boo bañee mu sàcc soo xëyee dénk ko li nga yor waaw nga am sa benn waay boo bokkal léeg lu fa lang mu jël ko nga yor 10 boo xëyee rek jox ko ne ko bàcc téel ma jeex na kii jël fi jàmbur ku ko dénk rek mu ñoom lu am solo la moo tax liir ba wuti kër Firawna di tëmb ca ndox ma di tëmb ca ndox ba àgg faltaqatahu mu for ko ku ko for aalu na waa kër firaw na ya booba am na ca ku yor feebar bopp dañ koo digal muy dem ca ndox ma di ca dugg ka di ko xool liir bay tëmb bañ séen ko ñëw fekk ko mu kale ci diggante ñaari garab ñu àgg si daal di koy for yàlla mu ne xam ngeen lu tax ñu for ko ñu déedéet mu ne li yakuna lahum aduwan seen noon nampal ko yar ko yafal ko wa hasanan nara nekk ki leen di naqar moo tax waykat ba mu ne walil manaaya turabbi kullu murdiatin wa duuruna li xaraabi dahri nabniha tafsirul bi mu ne ñi nga xam ne dañuy yar doom mu ne képp kuy nàmpal di yar nee na xabroo tax ngay nàmpal di yar mu ne suñu kër yi it rat tax ñu di ko tabax waxin la ndax firaw na bi muy for liir bi su yëgoon ne day nekk adu keroog la koy rey bu yëgoon day nekk xasan keroog la koy rey waaye liir ba mu doon wër la for tey yàlla mu ne inna firawna wa haamaana wa junuudahuma kaanu xaatiin mu ne inna firawna firawna mii wa haamaana ak ki mu tànn ci nit ñi teg ko ci wetam muy haamaan wa junuudahuma ak seen kaaraange ya seen soldaar ya kaanu nekkoon nañu xaatiina di ay defkati bakkaar te tey ko al ulamaa dañuy wax ne alxaati ak muxti xaati mooy koo xam ne mooy tey bàkkaar bi muy def man taamada zanba wal isma moxti nag mooy koo xam ne kii buy def bàkkaar bi teyu ko fa ala zanb min xayri taamudin ama firaw nag xamaa nag seen soldaar yépp nag ñoom xaati un lan ñoom dañuy def bàkkaar te tey ko ñu daal di jël liir bi indil ko asiya jabaru firaw na mu daal di koy ŋàbb xëmaan daal di waaxu ñëw ne ko na dee firawna daal di ñëw daal ne waawaaw na dee waxaalat ndaw si ne déedéet waaw dee suratu alqasas aaya juróom-ñeent wa qaalat wax imraatu firawna jabaru firawna ja xurratu aynin lii xurratu bët bu sedd ngi nii ngir man wala ka ak yow firawna mu ne ko lii day mooy doom ji nar na feral sunuy rongañ maak yow feral na ko xanaa yow waaye man dey du nekk sama xuratu ayn moo tax ibnu abbas mu ne law qaala qurata aynun lii la hadaahu llahu bihi wala aamana walakinahu aba mu ne bu fekkoon la ndaw sa wax la hama la firaaw na wax kon na ndaw sa gëme muusaak yàlla noonu la firawna déggami Muusa ak yàlla waaye bi ko nag si ne qurratu aynun lii walak daf ne ko déedéet fa yakunu mu ne ko amma laki fa naam wa amma lii fa laysa bi qurrati ayn waaw ca tafsiru tabari ñaar fukk xatum ñaar fukk ak ñaar mu ne ko kon yow kay yow ngay jël waaye ñun du nekk suñu xuratu ayn ñu xamaana jóg ne dañ ko war a rey firaaw na ne dañ ko rey ndaw si ne na laa taqtuluuhu bu leen ko rey asa an yanfaana xëy na mu jariñ ñu wax jooju dëggu na ndax jariñ na ndaw sa ndaxte dugg na ci lisla ci diine tabarkàlla da xam ne ñoom moom la Muusa doon woote aw nattaxisahu walada wala ñu jàppe ko doom wahum laa yashuruun waaye nee na ñoom fekk yëguñu ko bi coow li bare nag nañ ko rey buñ ko rey nan ko rey buñ ko rey liir baa du liir ba ndaw si daal di ne déglu leen ma ñépp ne tekk mu ne firaw na yow buur yi la fi jiitu woon ban buur nga ci mës a dégg dex gi di ko jural ay doom firaw na ko ah, loolu de mosuma dégg mu ne yéen ñu ma fi wër yéen xamaan laaj naa leen ban buur ngeen mës a dégg ba misra sosoog dex gi di ko jural ay doom ñépp ne ah loolu de mësu fi am ndaw si daal ni firaw na mu ngoog ndax am naa yow doom mu ne déedéet mu ne ko waaw yow bokkoo góor ñi bokkuloo buur ñi doo seen moroom daal di koy jay nag tabarkalla tagg ko tagginu tagginu jay yooyu ne ko doo seen moroom yow dex yi ñoo la jural ay doom waaye du jigéen ñi weesu nga fii doo moroomu góor ñi rek firaw na fëgg dënd ma ne ko wax nga dëgg de du ma moroomu góor ñi liir ba daal di daal di raw tabarkalla moo tax <laughs> nee nañu boo ñëwee ci kër te bëgg fa jàmm jóobal jigéen ñi rek boo bëggee ñu bëgg la bëggal seeni doom rek léeg-léeg ñu jël bu jox la tabarkalla loo am benn muskila waaye boo jubóo di ko ñoom doo fa yàgg